asalaamaaleykum nuyu nañ la. maaleykum salaam Abdoul Aziz Gningue. vice-président chargé de la communication du 12e Gaïndé. ñoo gis tey union sacrée bi nga moom la def muy Lébou gi Allez ak 12e ñu doon doon laajte lan moo xam lan ak noo leen préparé kan. avant tout damay nuyu président Allez Casa di Djibi ah, di ko ñaanal yàlla yan bi yàlla na oyof toll ñu dajale nii du tey ca Cameroun lañ ko tàmbalee moom mu jiite woon délégation ale Casa ca Cameroun mu fekk ñu fa mu ne ñun ñëpp nañu booloo nekk benn tey ji loolu la ñuy continuer tey maa ngi nuyu tamit Tidiane lii mi nga xam te moo fi représenté lébu gi di nuyaale de passage président Mass mi nga xam ne mooy président lébu gi lii nag boo gisee ñu def ko mooy dañu bugg booloo bokk ndey bokk baay benn objectif mooy fex nu ñu indiwaatee ndam bi fii Sénégal waaw parce que dañ doon remarqué di seetlu ne bu ñu ñëw nekkee ci tribu bi waa Ale Casa fële la nekk waa Lebu bi wala waa euh, douzième Gaïndé nekk de l'autre côté donc union sacrée bi lan la war a nekk ci ñi nga xamante ñoom ñooy les lions yi ngeen di fekk ji foofu noonu euh, en Côte d'Ivoire. mais loolu dañ koy remercier directeur Doudou Aw mi nga xam ni euh, jege na loolu ministre des sports muy Lat Diop ba pare di directeur général bu Sikaw moom moo ñu moo ñu woo woo douzième gaynde woo Ale Casa woo lébu gi ñu toog waxtaan waxtaan kooku nag moo jur lii mu jur nii tey ba ñu ne incha allah rabi niñ ko defee contre Sénégal Niger moom lañ ko fas yéene defee Côte mooy 15 minutes pour lébu gi 15 minutes pour Ale Casa yeneen mi ñu des ñu jox ko douzième gaynde loolu nag la ñuy lañ répétition la rek moo tax tey ñu ñaar fii ak ak waa pour préparer li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee woon. ku bu defee bu ñu demee ca Côte ñu def loolu mais nag ñoo ngi remercié Doudou Awa ngi nii waaw moom moo am initiative bi wax dëgg yàlla taxawal lu mel noonu moo tax ñu ko ci sant ko ci gërëm franchement lii dañuy ñaan yàlla nañ ci yàlla may ndam nan ko amee woon ca Cameroun yàlla nañ ko amee tamit ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu gis fan yi ñu génn te am benn maire bu ñu maire ñooñu lan ban loo leen di lancé loo leen boobu yëpp dinañ dellusiwaat seen kër parce que ñoom kër gi lañ bokk. mun ñu génn kër gi parce que yàgg nañu ànd koo ànd ak 20 ans ànd ak moom 30 ans histoire moo am rek mais ñoom mënuñu demaat feneen lu ci kër gi te am naa yaakaar ni incha allah rabi ñun ñëpp dinañu boolawaat bokk ndey bokk baay parce que ci famille bi lañ bokk. yéen chorégraphie ngeen ngeen ngeen ngeen waajal suñu suñu lion yi en Côte d'Ivoire. animation bi nañu bàyyi incha allah rabi bu ñu eggee Côte d'Ivoire Allez am na lu mu répété euh, lébu gi am nañu lu ñu répété. douzième Gaïndé am na ñu répété bëgguñu ko wane bëgguñu cag copp ñu dañu baax bu ñu eggee Côte d'Ivoire la ñu répété yëpp dañ ko fa wane allah. président sa man euh, xanaa di remercier rek xanaa xanaa xanaa di remercier euh, le mouvement sportif di remercier la LONASE pour dire que ñun initiative bi c'est le ministère ki a été à l'origine qui nous a appelé pour ñu toog ñu waxtaan ñu xool nan la ñuy def. comme dañuy dem pour défendre les couleurs nationales euh, amul en fait xaajaloo qu'on soit ensemble pour ñu rester dans pour ñu rester dans l'esprit du Mango Outou Namli loolu moo tax en fait ñu ñu nekk booloo nekk ensemble mais il se trouve que ku nekk tu as ta manière de de supporter ku nekk avec tes valeurs donc séparément on a mis en place une stratégie. dégg nañ jàpp nga ci bu baax sentiment nga ci am. waaw non sentiment moom seen une satisfaction rek parce que déjà il y a deux ans de cela au Cameroun on s'est retrouvé derrière ça les résultats ont été positifs donc suñu ñëwee tey ñuy demaat Coupe d'Afrique gars yi wooñu autour de ça aussi on ne peut en fait que accepter waat loolu am yaakaar ni ki ça va bien se passer comme la fois dernière. ban message ngeen di yi. message bu ñu mën lancer yi daal mooy un terrain de foot. football 11 contre 11 la rek ku la ko gën a bëgg rek moom mooy jël ndam li ñu ñaan yàlla maintenant mu may ñu ndam li mais ñoom nañ ko bëgg nañu wane ni ki bëgg nañ ko daal voilà. les frustrés loo leen di bon sa moom franchement je pense que euh, ils vont revenir à la raison peut-être parce que je ne sais pas quelles sont les origines de cette frustration c'est ça concerne directement le douzième gaynde peut-être qu'en interne ils vont régler le problème waa ñu lay nuyu président. maa leen di fay. maa leen di fay bu baax. Tidiane ñees la président de la commission des finance bu ASC Lewgui tey ma jiite délégation bi nga xam ne ñoo ñëw LONASE ñu invité woon ñu pour defal ñu subvention ma jiite délégation bi. waaw dañoo gis ne da ngeen ci nawetaan bi tey ngeen ñëw ñu gis leen ci euh, euh, nuñ koy waxatee ngeen bokk ci li nga xamante ne mooy union bi Ale Casa ak euh, douzième Gaïndé def ñu doon laajte yéen loolu Euh, lim ñu def mooy plaisir bu mag plaisir bu rëy di ko remercier d'abord le président de la république Macky Sall ak ministère bi nga xam ne ñoo fi neewoon bi ñuy njëkk a dem Qatar jàppale ASC Lebougui gi soutenir ñu ndax li waral loolu mooy di remercier aussi le peuple sénégalais bi nga xam ne ñoom ñaa apprécier liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def si grand yi ci wàllu nawetaan ndax bu ñu ñëwee dañuy wane yar ak teggin ak fair wane ambiance ndax ñun loolu lañ xam loolu la ñu nàmp loolu la ñu suñu papa yi ba tax tey ñun ñu ñëw doon loolu di ko dundal pour suñu génération yi di ñëw futur ñu mën nga tegaat seen loxo di sant nag baax a baax a baax ndax plaisir la ci ñun bu mag ndax yombul nekk équipe bu nawetaan tey ñu ñëw jël la indi la boole ci entité yi nga xam ne ñooy accompagner équipe nationale bu Sénégal kon loolu fierté la mbégte bu mag la de si ñun loolu daal lañ si mën a wax daal. sélection yi yéen nan ngeen koy defee ndax doo am ay problème mu tànn ay problème mu choix. du ñu am problème mu tànn du ñu am problème mu choix ndax booy xaar ASC Lëb gi dafa nekk benn quartier bu organisé ñu nekk tamit si gox si département de Rufisque ñëpp bëgg ñu organisé wu. nekk sañu ASC ba pare def ko si ay sous section léegi bu tànn bi jotee dañ koy yóbbu si yi section yi bu si nekk ñu jox ko quota moom mu jël comité supporter bi aussi tamit jël ñu boole moo tax du am benn problème ndax la déjà. union bi union bi noo ko gisee. union bi nga xam ne moo fi nekk entre Lebu gi Allez Casa ak 12e dañ koy rafetlu avant tout aussi tamit di di di remercier suñu aînés yi ñi xam ne ñoom la ñu fekk muy 12e Gaindé ak Allez nañu bu ñu nekkee ay ndaw nekk caatu équipe bi defe naa ne ñun ñoom la ñuy delloo njukkal ndax ñoo ñu yaatal di ko rafetlu nag di ñaan yàlla mu gën a jëm kanam ndax loolu rek la ñuy sàkku ndax amuñu lu dul Sénégal amuñu lu suñu réew fekkee na dañuy booloo boo ko ndey boo ko baay man koo wuti waa li defe naa loolu mbégte lay doon ci Sénégal yëpp ndax Sénégal bu toogee këram wala mu dem stade gis Sénégal yëpp booloo nekk ay ànd ñu am benn bi am benn objectif mooy Sénégal am ndam kon bu ñu booloo lépp nga xam ne lépp Sénégal lañ koy delloo loolu mbégte la te fierté la ñuy def ñun képp kuy doomu Sénégal ak ñi nga xam ne nekkuñu ay Sénégalais bu ñu gisee Sénégal booloo na loolu mooy suñu sag ndax sénégalais loolu rek mooy lurum loolu rek mooy sagam ndax réew dara teraanga la ñu wax kon nag sant yàlla ba te nee nañ sànq ku ci nekk dafa am benn minutage boo xam ne moom ngay animé donc ñu bëggoon xam waa Lebu gi lan la ñu yi. waaw comme d'habitude rek ndax ñun ku ñu am xam ñu si ambiance lu mu laaj rek nañ ko def dinañ way dinañ fecc ndax bu ñu demee compétition la ñuy dem comme les lions caaxaanuñu ñu si ndax bu ñu demee joueur bi nekk terrain li mu soxla mooy population am wala li mu soxla mooy peuple am wala supporter taxaw accompagner ko te liñ ko mën sañu voix. joxe aussi tamit suñu ambiance bi ñu am pour mën a booster Lions ndam kon nag Lions nañ xam ne ne ASC Lebougui mu ngi ñëw comme niñ koy defee Tëngéej di ko def si région yi nekk Sénégal yëpp incha allah noonu lañ koy defee Côte d'Ivoire pour yàlla def ñu ndam te gëm nañ ne ndam li dina ñëwaat Sénégal incha allah. kon Côte d'Ivoire dara du fa yomb daal. waaw dara du yomb ndax ñun xamuñu lu yomb ñun ambiance nay neex rek ci plaisir la ñuy mooy bégal ñëpp bégal ñu si grandé yi bégal xam ne ñu ngi si biir terrain yi kon nag